internet Leewtoo TV yi ginnaaw bañ leen nuyoo di am contentement di jën ak yéen saa su ne ngir indi leen di gën a fës si bopp xibaaru làmb avant loolu nag damay nuyu ki ma toogal Assane Waalo nday maa ngi lay fay di bëggee internet internetu Leewtoo TV am mbégte jàkkaarloo ñoom pour ñu indi leen li gën a fës ci yéenukaayu làmb ji. sa kanam bi leer na daa mel <laughs> la. leen li gën a fës ah, mooy suñu mbégte tey jii lundi 1er février 2021 suñu làmb xëy ci xëtam mu njëkk volonté débordant de Lac de Guiers de vaincre Eumeu Sène vers un combat ni nga ko waxee noonu la volonté débordante de Lac de de convaincre Eumeu Sène. vers un combat compliqué noonu la ko journal suñu laa làmb waxee lu tax mu wax ko nag mooy Lac de Guiers dafa jógee ci combat boo xam ne nii après recours la gagné Boy Niang en plus Eumeu seen ak Lac de Guiers de daje na deux fois benn bi ñun nil benn bi Eumeu Sène daane ko looloo tax journal bi ne Euh, Lac de Guiers mii daal décidé na pour daane Eumeu Sène loolu tax mu ne Eumeu Sène mu ngi jëm ci komba bu compliqué ñu fàttali ne combat boobu euh, Gaston Mbengue moo ko tëgg mi ngi ko prévoir 4 avril euh, bii di ñëw waaye nag li ci xew mooy Sambaay Fall également dafa wax ne combat boobu date boobu moom moo ko moom fas yéene ci fas yéene na ci tëgg combat bii di Coly Faye ak général kon daal am nan foofu daje date te coow na na fa juddu mais ñu yónni yàgg xool lan moo fa xew Ndeye Mbacké. incha allah plus compétitif privilégié du MMA Reug Reug plus redoutable pour Gouye Gui. dëgg la Reug Reug xam nga mi ngi nekk ci MMA bi te loolu day permettre mu mu compété mu am compétition loolu tax journal bi ne euh, Reug Reug plus redoutable euh, plus que redoutable pour guy gi ndax euh, xam nga ne MMA bi dina ko permettre mu am compétition te mois de mars bi rek am na ci trois combats yu mu war a def. te combat moom a guy ba léegi kenn xamagul ban la looloo tax daal euh, journal bi ne guy gi mooy gën a Reug Reug mooy gën a pare physiquement ak ci sur tous les plans euh, guy gi ba combat bi di ñëw di ñëw ci ñoom daal dina compliqué trop ci kii di guy gi. kee a entraîné kee ngay noble fay ci mhm. États-Unis Goro Sock sort du bois et mooy Moussa Ndoye mooy gën a neex bi dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lô dëgg la noonu la ko journal bi waxee Goro Sock dañ ko gëjoon dégg nag tey nag seex na ak waxtaan ak journal suñu làmb li mu fa xamle nee ne mooy combat ak Moussa Ndoye mooy dàq sax combat Modou Lô ak Ama Baldé nee nag moom bi mu paree ci combat am ba léegi mi ngi am ay sollicitation promoteur yi ñu koy sollicité mais combat bi nga ko gën a wax daal moom mooy digganteem moom Moussa Ndoye te moom nee na pare na pour jàkkaarloo ak Moussa Ndoye. daa bëgg a ay points kooku suñu naan waxee nee na barki temps euh, ki nga xamante ne mooy Gora Sock dafa perte ay points. la bëgg a yéegi ak loolu xam lu gën a leer. également Lady agent de Reug Reug on a proposé trois combats pour Mass. dëgg la Ndeye Mbacke moom mooy agent Reug ci MMA moom nag li wax suñu laam mooy tey euh, Reug Reug proposé nañ ko trois combats ci mois de mars bi di ñëw. ne waxagul nag euh, exactement date yi mais nee na proposé nañ ko benn brésilien brésilien benn anglais ak benn européen koo xam ne nii waxagul ban nationalité mais ne en tout cas daal ñetti date yi leer na ne ko ne Reug Reug dina ko bëri ci mois de mars bi. CNG de Kaolack des membres du nouveau bureau. après bin euh, falee Mame Kor fay président léegi journal bi dey présenté nañu euh, membre yi wax na am na ay novice am na ay habitué nee na novice yi nag mën nañ ci cité Mamour ci Astou Kanté mbay Diallo ak Waly Sène nee na ñii daal c'est la première fois ñuy intégré CRG bu Kaolack boobu mais na nee na am na également ay habitués habitués mën nañ ci limb Abdoulaye Diouf Maam Semou Diouf Maam Njambaan Maam Njambaan ancien lutteur la ak laay Njambor Laye Njambor également ancien lutteur la ñii daal nee na ay habitués lañ ci CRG boobu Ndeye Bakke. ba léegi CRG pour une pour une pour une bonne marche de la lutte à Kaolack. les mm-hmm. tâches. assigné au nouveau CNG ku la ñuy yow. ni nga ko waxee Ndeye Mbacke loolu la ginnaaw bi ñu leen falee bureau nouveau bureau bi dañ leen a jox sept euh, objectifs wala sept mission yoo xam ne nii war nañ ko atteindre. cette mission yooyu nag mën nañ ci citer la création d'une xam nga euh, bi ñu faree Bira Sène Matar Ba def na ko si deux ans ñu dem vers une fédération léegi nag CRG bu euh, Thiès bi nu falee bureau bu bees ma nee na leen nan def tout que si deux ans yooyu ñu am benn créer benn ligue. am na également la promotion des autres formes de lutte maanaam lutte olympique lit libre ak ni ni mu demee ni ak yeneen yi yu ci topp wax na leen également ñu atteindre la formation e encadrement de tous les acteurs de la lutte maanaam acteurs yi de la lutte yu nekk Kaolack ñu am benn formation boo xam ne dina permettre ñu xam par exemple règlement yi ak ni ni demee noonu am na également la mise en place de comités départementaux ñu def de telle ko que euh, département yi ku nekk am benn comité de lutte boo xam ne di nga fa présenter wala di nga fa représenter CRG bi le Bakel. contre Balla Gaye le lion de Guédiawaye Bombardier s'éclairage au bord de la piscine. ginnaaw bi ni ngeen ko xamee Bombardier war a am benn revanche bu ñuy def ak Balla Gaye 2. léegi nag journal suñu làmb nee na moom toogul mi ngi mbuur ci benn piscine def natation pour entraînement natation moo gën a nekk sport bu gën a complet ci ci wàllum euh, tàggat yaram nee na nag mi ngi ci benn piscine di prélasé wu saa daal bu entraîné ba pare day dem ci piscine bi dall bu baax a baax récupéré doog a ñibbi këram. événement eh, lañ jëm Reug Reug Ngalani du fair play après le combat ñu gis doomu sénégalais boobu ba mu gagné nga xam te ne mooy Ngalani wane fa respect bu mat sëkk ah def fair muy image yu rafet Ndeye Mbacke ginnaaw bi mu ko kaawoo dóor ko ba mu arbitre bi tàqale leen lim njëkk a def mooy jóg euh, lëngu ko waxtaan ak moom mu nekk image yoo xam ne nii sigil na ko si sigil na Sénégal mais également ñëpp rafetlu nañ ko nday Mbacke. ba léegi dañuy desante dañuy des li nga xamante ne mooy MMA. jëm ci Siteu ginnaaw ba mu joxee conseil yu baax nga xam ne nii mbokku mbërëm la. Mhm. Reug Reug mu ngi félicité ki nga ne mooy dëgg la Ndeye Mbacke Siteu mbokkam mbërëm la waaye également xaritam la ay xarit la ñoom ñaar Reug Reug ak Siteu moo tax ba Reug Reug ba pare Siteu daf ko ko daf ko félicité te avant muy dem ci combat bi également joxoon na ko ay conseil yoo xam ne nii finalement gis na ne conseils yooyu baax na après final kii combat bi nag. félicité na ko félicité félicité na ko bu baax a baax a baax jukkal ko ci victoire bi mu jógee ci contre Ngalani ñu fàttali également que ne Siteu mi ngi ci MMA bi di jot na def benn combat moom ak benn américain bu tudd Karl Kal pour Kal Kilper Pepper combat boobu mi ngi amee woon le 1er octobre 2019 Siteu tamit gagné woon ko par KO ñu xam ne sénégalais daal ñu ngi avancé bu baax a baax ci wàllum MMA. ña déggoowul nag Batista Batista fësul ni nga ko waxee noonu la Mbacke Batista fusil Lirou Diane noonu la ko journal suñu waxee journal suñu làmb waxee nee na Batika li mu li mu ñaawlu daal mooy ni Lirou Diane di comporté woo ci milieu de des médias bi nee na dañ ko war a génne ci entourage ba Balla Gaye 2 ndax daal li mu fay li mu fay wax wala à chaque fois bu jëlee kàddu rek du pour defar loolu la Batista gëm ba journal suñu làmb ñëw ci moom ak ak moom tey. Batista gëm na ko ñaaroon na ko aussi wax na li nga xam mooy point de vue am. Mhm. Prince rendu visite à Modou Lo. oui Prince xam ngeen ko promoteur la moom moo tëgg combat Modou Dia ak Thiat muy combat bu neex weekend bi passé nag dafa dem Lac Rose fekk fa euh, Modou Lo benn visite euh, surprise la ko jagleel ñoom ñaar nag waxtaan nan journal bi noonu la ko wax nee ne waxtaan nan waxtaan nan ci làmb waxtaan nan ay heures heures yi ñoom ñaar daal ay xarit lañ te yàgg nañ leen a gis ñuy ànd. balaa ma ñu tëjee fi nga xam te ne nii mooy Sénégal Gambie ñu ngi fay wéyal wéyal bi def ay tournois Batista démb. gañe leen nga xam te ni mooy nag fee ca Gambie. oui Ndeye Mbacke Sénégal moom ba léegi dara euh, démarré gul waaye lam Gambie moom ñoom ñi ngi bëre ñi ngi doxal seeni activité bu baax a baax loolu tax euh, weekend bi passé Batista 2 bu xam sa cosaan dem na fa remporté fa benn tournoi lutte simple ba mu gagné nag ba mu jëlee tournoi bi gagné gagné na fa benn nag ak xaalis bu takkoo takku loolu la journal suñu làmb wax ci Batista mi. ba tey Gambie la ñuy desandeel bébé xarañ amical face to face le treize février incha allah jamaïcain moo tëgg combat boobu noonu. dëgg la Batiste kii euh, face to face la lan nar a amal ci diggante bébé xarañ bébé xarañ mi ngi nekk écurie Rock Énergie général benn euh, mbër la bu nekk Gambie ñoom ñaar nag dañuy def benn face to face le treize février ñoom ñaar dañuy bëre ci combat bi war a dox ci diggante Leket baar ak France. le 28 mars ci Gambie combat boobu nag Jamaïque moo ko tëgg comme que Sénégal euh, affaire yi commencé gul moom nee na mi ngi dem Gambie démarré fa saison euh, combat boobu daal mi ngi am le 28 euh, avril le 28 mars en Gambie Ndeye Mbacké. incha allah comme fii daan daan tax a demee daan taxaw ñu dañuy bëggoon ñu ñëpp daan dem te Gambie yaa bëggoon indi leen làmb bu fa am lépp fan dañ leen ko indil fii ji Leewtoo TV incha allah. Mm. loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp di la jaal di la jaal jëfal ne Mbacke comme mbay nekk mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi bawal mi ngi bawal di di lekk xaalisam ñu leen di jaajëfal bu baax a baax baax comme d'habitude di nuyu waa Linguère di jox dig daje eh, suba incha allah internetu Leewtoo TV yi. di leen jaajëfal bu baax ah, di am contentement ak mbégte jën ak yéen saa su ne ah, nii la doon demee lii moo gënoon fas si bopp xibaar di jaajëfal équipe technique Leewtoo TV yëpp Mansour kontaanee naa la bu baax Ousmane bëgg naa la Yacine Fall. Ah, Malick suñu infographe boobu noonu ak Aïda maa ngi leen di bëgg bu baax Matou kontaane naa tey moom bu leen fàtte ah mister mister bëgg naa la bu baax di bëgg sama papa ah Cheikh Mbacke bi naa ko olloo bëgg naa la ba baax di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci Leewtoo yi